siiw du yaa ko njëkk a sax moom laa def transition bi jox ko euh, jox maître El Hadj Diouf euh, lan moo la ko prouvé ak lan moo tax tey ngeen wax ni moo nekkoon seen seen seen discours daanaka euh, ci rassemblement bi ndax dangeen gis ay ay ay signaux

Nous avons ñu pas dugg wàcce leen jàpp ci kasso bi. Mhm. ñu gis ni képp ku ci yey ya bi nga bok ci perte sa poste. ma sœur la parier je veux dama bëgg nga conserver sa poste parce que tiens mais tamit ni am yalla yalla ay bour ñak yalla yalla ay bour fi yalla fi ne Macky Sall nekku fi il n'est pas éternel Macky Sall comme ni ngeen ko waxé ñun ñep dañoo boole woon lépp lu ñu Lamine Ba aujourd'hui qui est là accepter la défaite accepter de perdre le pouvoir continuer d'opposer tok fi tay ci constance am mais euh, yeneen politiciens yi waru ki ki waru leen gën ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen alors je pense que ni buñ démé ba tay dajalo di dankafu parce que loolu la ñuy wooyee dànkaafu ndax xoddiku balaa ngaa lakkade li ñu dundoon ci Abdoulaye Wade ba ay bakkoon rotoon ci ndax jour bi ñuy valider la candidature de Abdoulaye Wade ci la Mamadou Diop ñak bakanam de passage nous koy ñaanal yalla xare ko aljana te yërëm ko mhm. donc ni bañ encore gis nga pap Ngagne peut-être des fois je peux être un incompris ma suma bakkan waxeewuma ni damay tàkkale wala damay contre man je n'ai rien contre le président de la république sérieusement bañuma Macky Sall bañuma et je le dis ici bañuma c'est quelqu'un que je respecte mu ngi doxal il a sa façon de faire je respecte sénégalais yi ñu ngi ko respecté sénégalais yi boobu ba léegi ci liñ koy interpellé mooy wëy yaa ñu diggoon xëy joxooñu ko amul problème ñu ngi out pexe